président Abdoulaye Sylla nag ak euh, santé dafa nek lu lu doy war parce que ci philosophie président Abdoulaye Sylla dafa japp ne toppatoo doomu adama ci li ñeuk ci jaamu yalla ci la ci la bokk motax ci limuy def yëpp de façon générale toppatoo doomu adama yi ci lay ci lay ñeuk centre bi association moko tabaxone euh, après téléthon bi mu defoon 2011 pour ñu tabax centre bi biñ ko tabaxé liggéey nañ fi ñaari at 2017 lañ commencé liggéey bi ba 2019. Euh, par la suite ci la Ecotra ñëwé jël projet bi yépp en entier à 100 né mom dina ko réaliser te bobu ba léegi tamit li ñu waxon mu ngi ci. Ecotra teg def liggéey bi mu ci ayib bi ba centre bi tay ñu nekk ci phase finale bi donc rez-de-chaussée lañ fi amone benn salle bo xamné 18 machines la Ecotra def nako ko R plus 3 ñetti salle de dialyse lañ fi am benn salle bi ci souf 17 machines ci kaw grande salle bi def ñaar fukki machine ak ñaar beneen salle VIP bi def ñaari machine def nañ fi tim ay innovation yu bari parce que comme dañ ko bëgg a def centre de référence au niveau de l' Afrique de l'Ouest moo tax euh, commodité yu bari ñu def ko ci loo xam ne maladie rénale da koy soxla ci diagnostic bi ak ci faj mi ñu bëgg ko def fii di ko amee fii ci biir centre bi donc ci lañ defee ay salle de pose caté, petite chirurgie am fi salle de échographie, pour écho doppler yeeg ak écho cardiaque yi maladie di soxla am fi benn petit laboratoire pour les analyses de routine yi maladie di soxla ci seen faj la ñu ko def am temps et en heure voulu. donc une ci innovation yi sal dialyse Salif Fall dañ fi defal salle de formation di fi former des infirmiers de dialyse donc ñun fii formation fii lañ koy defee la formation sera gratuite euh, personnel boobu ko formé dañ ko mettre à disposition dans toutes les structures publiques yoo xam ne am nañ centre de dialyse ñoom ñu fay liggéey defaluñ ko donc pour fii. toujours ci innovation yi li ñuy wax santé bi euh, Wa, Ecotra yi sax ci sen bop ñoni dinañ ko gëna développer té tamit euh, buñu def visite bi am na fenn foo xamante ni nañ ni fofu crèche la xamna dina yem ñu bëri crèche lan lay def ci bir hôpital wala crèche lan lay def ci bir centre de dialyse. tey ñi ngi ci euh, centre hémodialyse salufal. Fall dafa nek nak lu lu daw yaram ndax centre bi ñi am feebaru roño fièvre rein ñi hémodialysé ñom lañ fi ñom lañ fi fecc euh, ay ñett ñetti at ci ginnaaw président Abdoulaye Sylla jëloon yéene bu doy war né centre bi ñu amoon nga xamné dafa ndawone té mënatul woon recevoir capacité yépp ñu ne dañ koy toj euh, jóge ci niveau centre yobbu ko presque ci niveau complexe hospitalier et, je pense que visite biñ def sank montre na ne que ñu ngi ci presque ci logique gu complexe hospitalier. président Abdoulaye Sylla nak ak santé dafa nek lu doy war parce que ci philosophie président Abdoulaye Sylla dafa jàpp ne toppatoo doomu aadama ci li njëkk ci jaamu yalla ci la ci la bok moo tax ci limuy def yëpp de façon générale toppatoo doomu aadama yi ci lay ci lay njëkkee mu nekk nak lu une belle innovation nekk lo xam tamit association achi dañ ko bëgg jël def comme modèle euh ñom gis nañu sax seen i ñu nekk ci espace UMOA bi ñëw visiter centre bi moo tax centre bi dañu bëgg mu nekk ben modèle bo xam ba nga xam ne bu ëllëgee suñ ko bëggee euh, rapidement defaraat fenen ci ci biir réew mi nekk lo xam day day gaaw toujours ci logique euh li président Abdoulaye la bëgg a def manam tabax ay centre de santé yu ak complexe hospitalier yu mais am une usine de préfabriqué bo xamné ne ko mëna def ci Mon point de vue est un point de vue positif, vu qu'on a euh, un centre euh, salufal qui sont dotés de 43 générateurs et qui peuvent donc nous aider à gérer la liste d'attente au niveau dans cette optique-là, euh, le ministère de la Santé, euh, avec ses centres publics, a été appuyé euh, par les centres de dialyse de Salioufal, dont la mise en œuvre a été rendue possible avec ECOTRA et son président, M. Abdoulaye Silla, que nous remercions infiniment.